mais est-ce que nga jàpp nga ni. mais dañ ko bàyyi mu def lu eh, eh, mu moo paase. kii ñu ko xajee mbër mi yéen ñëpp kenn xam lu xew règlement am na lu may may ñoom su fekkee dañu jàpp ne dañu daan te leer nañ nañu daan dañuy ñëw bëriwaat su lamb ji jeexee am na lu leen yoon bu ñu leen daanee ñoom ñu dem defi recours am na lu leen yoon may su fekkee dañoo ñëw daan nag ñu dem savourer seen victoire loolu la loolu rek la mais leneen amu ci mais ak lu mën a xew moom arbitre mënul euh, wootee ne dañuy bëriwaat benn mbër bi di bañ wala di sàqi boo ko defee ay sanction dina dal sa kaw dinga nga ñàkk sa xaalis ay sanction dina dal sa kaw avancement bi ñu wax nag ñun du suñ côté ñun suñ côté suñu yoon nekku ci mbër bi mi ngi ni ak entraîneur am ak manager am keneen raxu ko loolu yéen ñëpp gis ngeen ko nga gis saay néew dama ni damay wax toujours man ci làmb nañ may bàyyi xel man ànd ak mbër nekk ménage am du tax ma wax lu dul dëgg. yaay ménageur booy si barki démb la ñu denc Ramdaan di ñaan yàlla xare ko àjjana man mi ëllëg dama fiy jóge amul ci àdduna ku ma jaral fenn parce que fi ma jaage ba am bagu arab du caaxaan yonent bi ne kuy fenn bokko sama xeet booy bébé bis mi bi mu daaloo dafa jóg di jooy ni wuy sama ndey yàqu naa mais mbër nu muy bëre daalu di jooy jog nga jox keneen ndam booy bi def na li mu waroon def bëre daalu da cee bokk soo daalu da ngay gëm yàlla dégg nga wax bi Bébé Bismi nag dafa rujuwaat làmba ngi ci kanamam. mais mais problème du Bébé Bismi mais arbitre ne si dafa def si. arbitre yi dama ne dàqu ñu ma man. déedéet barke Seydina Mohamed dàqu ñu ma bëre. action ci biir la ñu wax bu départ ci biir ci bitti jël la jël bu rëy la ko daan lam yaakaaroon na bu ñu bëree fukk booy bi daan ko fukk. li li naa def lu may def jëm jëli sama drapeau ànd dem ngor feetu ji. delluwaat bitim réew gi mu ji nekkoon bitim réew la ñoo ni préparé day delluwaat liggéeyaat xale la mais c'est a bëree CNG dem nañ ñëpp dem nañ xanaa jinne yooyu bëre nañ ñëw suuf jinne yi ñu bëre. yéen CNG li ngeen def. dama ni daan naa ko jël bu rëy maa ngi xooli sama yeneen morom ci suñu morom rek kuy suñu morom bu ñëwee rek ñu bëre moom xale bu ndaw la dañuy ñaan rek yàlla fal ko cat jërëjëf. gis nga moo ngi noonu situation yi ba léegi dafa mel ni ah, kii maa ngi leen di fay waa wasaare. waaw tey noo gisee situation bi tey. waaw situation bi daal ni ma ko gisee lii lamb moom lu mel ni daf ciy faral di am ndax Tyson ak Bombardier Léopold Senghor defe naa lu mel ni amoon na fa yaa ngi dégg arbitre bi jàpp na jël la amul adversaire bi jàpp na Tyson jàpp na daan na ñu woo ko mu sàqi dem ñibbi. maanaam li si lamb la bokk. waaw day am parce que boo xam lu tax lu sport ci boppam day am yu mel nii lamb ak football ak basket ak yëpp daf ciy am des fois ñun ñii seetaan wala jël am na te arbitre bi nekk ci terrain bi bi yore sifflet moom gis na ñun li ñu gis amul su ko gee nag amuñu lenn lu ñu mën a def lu renseau wu li nga xam ne nii moom la arbitre bi jël. après nag bu loolu passé yow athlète bi am nga lu la yoon may am nga ay voies de recours yoo xam mën a jaar mais man moom du ma digal benn mbër arbitre jeexalul komba nga jàpp ne daan nga nga dem. bu fekkee na nga bëgg def sa carrière man du ma la digal loolu quoi li ma lay digal mooy nga ñëw jéem a assumer. pour bëre quoi moo gën a wër parce que bébé euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Siteu xale la avenir u lamb la am na mbooloo macha allah lamb yaakaar na ko kon tey suma ma du parce que bëgguma ñu aj ko wuma ko ko barke alxuraan parce que waaw mbooloo mi bëri na macha allah waaw doy na waar daal. ci biir la commencé jeexee ci biti. waaw loolu xam nga loolu Babacar mënu koo wax mënu ko atte Babacar xam nga lu mu a atte man daal sama reportage ne na Siteu bu Ngor daan na bebe bismi waaye nag après la ma wax man arbitre koy dëggal wala moo koy weddi. mais man li sama bët li sama bët gis laa wax la ca des nag du man maay jël décision bi arbitre moom mooy jël décision décision bi mu jël mooy jël la amul na ñëw bëriwaat kon man ci loolu laa mën a sukkandiku. mais gars yi mel ni waxoon nga ko nee na bokkoon na Tyson ak Bombardier tey moo daal di. Balla Gaye Bombardier même loolu am na fii. amaan na est-ce que maintenant fu mu toll nii kon CNG wala wut solution yi mel nii. waaw solution non xam nga solution moom arbitre arbitre la solution kay mooy indi ay arbitre arbitre mooy àtte c'est le maître du terrain déggu li ma la arbitre c'est le maître du terrain moom mooy xool ni jël li amul wala amul. mais comme football am na arbitre mais dafa am VAR est ce que tey jii laaw mu dem loolu moom dang naan ma kon xëy na CNG uti ay matukaay yu bees. parce que solution bi bu ñu amoon fii panneau. panneau bi nii nii xam nga panneau baa ngi nii. écran baa ngi nii buñ ko liggéeyoon ba muy dox xëy na lu mel nii boo amee dinañ ko mën a dem vaar ko ñu xool ko sur le coup lu ci am ñu valider ko lu ci am lu ci amul ñu xam ne lu amul mais nag bon xëy na ak lii nii ak situation yu mel nii dinañ ci jaar ba yu bare bari yu gën ko régler ñu régler ko mais encore une fois daal lii doy na war daal waaw Siteu bu Ngor nag xale la encore une fois vraiment bëre bu rëy rëy rëy la bëre bu Bébé Bismi bu rëy xam naa ne jël bi bu ko arbitre validé woon xam naa ne dana rëy de yëpp pop pop pop non la boo xam ne macha allah waa laf cat daal waaw. xeer maanaam maanaam. xëy na dundee situation bi. bi ñëpp gis nañ ka Siteu bu Ngor mënul daan Bébé Bismi jël bu leer nañ ñu ne bëriwaat fan lañ ko teg. mais jàppoon ne bu muy bëriwaatul CNG ay daan. non daan yi ak lu mënta ka am loolu noonu après ñoom la ak mbër mi ak manager bi ak ñun waa équipe bi suñu problème mais maanaam lii dafa leer xale bu ndaw préparé combat am def si xaalis bu bari booy Maroc la dem gars yi dagg seen xaalis daggal ko mu dem Maroc entraîné ji ñëw def si xaalis bu weex tal ñëw daan jël bu leer li mu woon di fii tey mat na 3 millions. li moo divisé si ay nit 3 millions wala lu ko ëpp nit nag bu sonnee si làmbam dañ ko koy fonkal lii la ñuy def après booy bu réactionné neneen wala nangam ñu aj mbër mi ne booy dañoo indiscipliné nangam mais lii nii fa la tegu fa la tegu làmb dafa métti mbër mu am coupe combat préparé ko pendant des mois dem fu ne daj fu ne ay mbokkaam nelawuñu bu ko yàlla mayee ndax nga la nga ànd si ak moom mais am na loo xamante ne dafa rafetul. ñun ñun décision bi ñu jël mooy booy bi bëreewul loolu la waa écurie bi wax loolu la dirigeant yi wax bëréwul loolu la ñu wax dirigeant yi ñoom jàpp nañ booy du bëre waat dirigeant yi nee nañ du bëre coach bi nee bëre loolu ñun ñu si dara après lu am tamit ñu ñu ñoo xam ne loolu moo am